jeunesse bi laa doon làqatu rek dama làqatu ba sonn mais instant yi moom doy na waaw mais rek yaa ma gën a xam maanaam bu Siteu original baa ngi nii mais dama doon nëbbatu jeunesse bi ak jeunesse bi ni ñuy toppee bu Siteu guddi yi xam nga xam nga rek waaw loolu tax may sol daal ndeysaan ndeysaan mais nag euh, jamono yi dafa mel ni gis nañ la yaa ngi ci ay loxo yu wóor a wóor dëgg la ay loxo yu wóor laa nekkoon parce que ñëpp xam nañ ne ay temps ay loxo yu salte laa nekkoon ay loxo yu safaas mais léegi si ay loxo yu wóor ay loxo yoo xam te ni lépp lu ñu wax def ko waaw ma gis ma gis sa statut nga signé contrat ak waa Dem Dikk euh, contrat bi naka la demee waaw contrat bi nu mu demee ku di di wala ma dara damay nuyu DG Ousmane Sylla DG Ousmane Sylla directeur Dakar Dem Dikk di ko bu baax waaw maanaam Bou Siteu lii moo lay won ni maanaam ñëpp ko bëgg daal mhm. waaw gis nga biis yu ñu wàccee wàccee trois cent soixante dix biis ñëw tuur ko ci réewu Sénégal xam nga xam ne Bou Siteu de voix la waaw ku si mel ni DG Ousmane la contacté moo ñu waxtaan mu ma moom daf may suivre ay doomam ak ñëpp ay suivre bu Siteu ba si jabaram sax kuy suivre bu Siteu la te gis na maanaam ni may defee sensibiliser di sensibiliser ba gis na tamit ni ma jeunesse bi joxee bopp lu ma wax jeunesse bi na waaw te parce que xam na ni man wu ak jeunesse bi man sax ñëwuma pour sàqatoo jeunesse bi de wala taxaw naan jeunesse bi jeunesse bi comme yeneen ni mbëri liñ def naan jeunesse bi tey ñu xëy gis la nga def leneen loo xam te nii bokkul ci lu jeunesse bi di bëgg xam nga rek mu kon publicité bi loxo Bou Siteu laa koy teg ñu publi ñu ñu def sensibiliser si Dakar dem dikk yi waaw di wax ne jeunesse bi rek nañ xam ni biis yi sunu biis la xam nga waruñu nangu ku ko toj. waaw ñi gars yi ñuy digal naa leen toj leen biis yeeg taal leen biis yi ñooñu seen i kat kat yu am kilim la ñuy nekk. kon ñun biis yi mooy sunu kilim biis yoo xam ne am na kilim biisu Dakar dem dikk yoo xamante ne ni maanaam ça fait diamétralement opposé ak biisu Dakar dem dikk yi wàcc guddi yi. am chargeur sa téléphone bu fi dee da rek si câble mu chargé sa vite fait nag xoolal maanaam balaa 20 minutes sa kóol fees Dakar dem dikk. ku si mel ne directeur di ko nuyu bu baax Ousmane Sylla waaw di kontaan si moom bu baax a baax a baax. Tafa Gueye de day dégg naa mu wax nee na fi mu toll nii sa combat moom taxaw na te li nga xamante ni moom la def euh, bu Siteu kii Laurent Ndiago lu ko raw dina la ko def. non loolu moom day wax rek Tapha Gueye 2 moom day neexal rek maanaam moom day day day day naxaate ba daan la te ku xool combat dafa nax Laurent Ndiago ko te man nag boo bëri nekk rek daan na Tapha Gueye 2. mais dafa entraîné. mais dafa entraîné kon man entraîné ma. ah man boo xam des na cinq mois ma war ci génn voyage yi dem yokk ji doole. di ah nuyu waaw di di di waaye di nuyu ku baax waaw. nuyu ku baax du ma sax tudd tur te parce fii loxo bu baax bu ma am tudd son yi bu mel ne télécom te ñëpp xam nañ sama diggante ma ak son yi bu mu demaat samay nit yu baax lay wër di fa dem te yooyu bokkul ci làmb mais naka ngay def ba gérer succès bi nga xamante ni sunu borom jox na la ko ci dernier temps yi waaw succès bi moom du ma koy doxee rek muy maanaam wàccee sama bopp man damay man man ba tey xaw ma luy succès de man succès comme ni nga ma ko waxee nii noonu laay toog ay nit di ko wax ma koy dégg rek mhm. mais man ma sax luy ay succès ak yooyu mhm. man Baye Fall taalibe joxe su ma dégg ñu naa ma ay yow la wax Eh, xaw ma lan man luy xaw ma sax luy lom de année mais lom de année yoo xam te nii àndul sax kado oto boo fi kenn waxate ay lom de année du benn lom de année waa Senewet waa Senewet nag ça fait porte plainte te parce que un fokk ma porte ah taf ma si kii di wili pande Bou Siteu naan Bou Siteu mooy lom de année si ay waxu kese dinaa leen porte plainte waa Senewet hmm? waaw wallaahi li may wax Idaali Idaali bu Waly Seck xam na li may wax bu baax. waaw mais ay jamono ji dafa mel ni da jox bopp ki nga xamante ni moo di la chanteur du peuple Waly Balago Seck. waaw les chanteurs du peuple maanaam man Waly sekk lenn rek laay laay affecté ñi nga xam te ne ñoo gérer affaire sapeur affaire police di leen wax ne maanaam damay interpeller directeur u sapeur di leen wax ne Waly Seck dina mës a def est-ce que xamoon ne Waly Seck dina mës a def kirimam dina soirée dina mës a am kirim ñu ñuy ñuy wax ak sappoor yi ñu fiy indi ay ay centaine oto sappoor ndax Wally Seck way muy way ci réew mi Wally Seck gisoo keroog Gàmbi nu mu def Gàmbi tuuti gars yi dee foofu Wally Seck wayam bi wallaahi bu Wally nag boo wàññiwul ni ngay woyee di nga mus a def kiirim sa soirée waa di wax ne sappoor yi nañ ñëw suba sappoor yi nañ fi bëri xam nga damaa xam lu may wax guddi yi Wally am na lu mu am na lu mu dencal jeunesse su Sénégal ci way bu neex yow Wally Seck lu ma way ñun ñi challenge ko léegi comme buusi dara su ma def lu ma wax si interview gars yi dem TikTok ko challenge ko kon Wally tey dafa toll si guddi yooyu waaw di interpellé nag directeur Sapor di wax ne lu ñu mën a buukale wu si ay Sapor indi ko fi suba rek nañ ko fi indi quoi. Mhm. xam ne Wally Seck bu dul loolu dina def kirim si soirée am. waaw question bi mooy ñu ngi waaj élection te na ni yow yaay euh, porte parole des euh, ñi ak nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi ak les benn message laa leen di njëkk wax di leen wax ne tëli tëli yoonu Tivaouane bi mënoo leen ñoo defaral Tivaouane Peulh yoon bu gaaw yoon bu leer te defoo leen fa ay lamp te loolu Cambérène ba ba ba Cambérène ba Tiwaawoon pël amul lamp danga gis oto bu gaara sax ñëw seere nga gis ni daw ba daw dugg oto bi ay nit a nga fay seen bakkan si yoonu Tiwaan pël bi ndax lëndëm bi mu lëndëm maanaam manqué manqué sécurité te ñun ay carburant la ñuy lakk di jënd ay essence yu seer chaque jour bu ñuy ñibbi di jaar foofu di lakk carburant kon xaas boobu noonu nga ngalawaay defaral la ñu si lamp yoonu Tiwaan Pël bi leer ñun ñi kii mais chaque jour soog yoo xam te ne kenn xamul nu mu demee ndax yu ndax dëkk bu lëndëm message boobu laa am lu may jàllale di jaalal tamit jeunesse su Guédiawaye di wax nañu yeewu te ñu xam ne xam nga affaire politique yi maanaam ne nañ maanaam ne na na jeunesse bi yeewu waaw na jeunesse bi yeewu xam bu baax ki ñuy wooteel te parce que réew mii nii guddi ku wóor lañ ko war a jox war a waruñoo jox ke kenn kuy nax jeunesse bi si réew mi ndax jeunesse bi sonn nañ jeunesse bi luñ jot a dund rek dafa doy kon ngalawaay képp bu ñuy falate fii nañ fal ku wóor ndax gars yi dañuy yërëmantalu ba nga fal leen ñu ñu ñu falu rek nekk ay golo ñoo gën a xam li ñu lu ñu leen wax. nekk ay golo xanaa yow kon li euh, li li Boy Niang wax Modou Lo moom ngay confirmer comme maanaam. ah yëgoo li booy ñaa wax Modou Lo. non yëgu ma ko maanaam ñooñu sama niveau dépassé na ñooñu. sama niveau dépassé na ay Boy ñaa ak ay ñooñu ma sama niveau dépassé na mbër yooyu de. mais seetaanu open seetaanu ma ko sax maanaam sama niveau léegi niveau bi ma toll. moo dem ba dépassé naan maa ngi suivre ay ay ay mbër yi nga xam te ne ay ay ay raq lañ maanaam su ma la mënee wax sama kanam ay raq lañ. maa leen dàq communiqué dàq leen a bëri ëpp leen fut xam Modou Lo xam nga ma bu baax booy ñaa yow xam nga ma bu xam nga kuy buusite bu baax a baax a baax. sama niveau dépassé na leen léegi. mais combat bi ñoom ñaar euh, kan kan mooy kan mooy mooy favori si combat bi. waaw combat bi moom suñuy wax favori moom booy ñaa mooy favori. waaw booy ñaa mooy favori ba pare len laa lay wax si combat combat bi gis naa si dóor mu daanu. dóor mu dóor mu kaawte. maanaam ñu dóor si mbër mu kawte waxuma la comme ça ñu dóor ko niir bu kii maanaam mu kaawte ba ba perdal ñu daan ko. ñu loolu laa gis si combat bi te incha allah combat bi yàggatul na ñëpp seetaan xool. waaw loolu laa am lu may wax di nuyu Sénégal nag ñëpp waaw. kontaan si yow si jaajëf ndeysaan